ngeen jot ne dugal nañ li xew dem ne fitna ci ndakaaru gox yenn Sénégal ministre intérieur Félix Antoine Diome baaxee ci waxtaan babaka Fall ñu teewlu ko ci la mu ci xalaat moom ministre intérieur. mooy Sénégal état de droit la. te état de droit lu muy tekki mooy réew mi ci boppam nga xamante ni gouvernement bi euh, dafa tënku ci yoon. waaye képp ku fi yeewoo tamit da ngay tënku ci yoon. li yoon wax moom amul xaj ak seen ñëpp ñoo ci bokk yem. ak noo mënti tudd ak foo mënti dëkk ak foo mënti nekk ci bérébu liggéeyukaay ngay góor wala jigéen ngay mag wala ndaw ñun ñëpp ñoo ci bokk yem yoon moo tegu ci suñu kaw ba tax na lépp loo xamante ni yoon daf ko dàq kooku li ñuy njëkk a fàttali doomu aadama yi mooy waru leen waaye bi ci topp mooy su fekkente ni def nga ko am nay daan yoo xamante ni yoon prévoir na ko waaj ko loolu it hésité benn yoon ci def liggéey bi nga xamante ni suñu responsabilité bopp la. mais euh, monsieur le ministre li indi nag euh, xëy na jaxasoo gi tey mooy bi Ousmane Sonko nekkee ci yoonu tribunal bi yegg si ci ca Mermoz ñu bloqué ko bëgg ko awloo yoon woo xam ne moom nee na boobu boobu yoon bëgg ko foofu la coow li tàmbalee. waaw loolu li ma la ci njëkk wax euh, Babacar yow moom sax xam naa di faral xaj na di dawal sa oto bopp wala beneen sénégalais. waaye amul benn sénégalais boo xamante ni musoo xëy bis moo xam da ngay wuy ji fenn wala da ngay dem doxi beneen soxla nga ñëw ba yegg ci benn béréb takk der yi ni la yoon wi ngay jaar ndax ñoom xañ na dinañ yëg wala xam wala gis loo xamante ni yow xamuloo ko wala yëguloo ko lépp loo xamante ni day jur jàmm ci réew su fekkente ni seen devoir la ñu fagaru ko dinañu wax ni jaaral ni plan de circulation yi force de défense et de force de l'ordre yi ñoom ñoo koy déterminer di nga gis sax léeg-léeg ñu toog ba càgg ni fii dañ koy tëj wala fii ñu ñëw ba càgg baaree ko nit ñi dañuy jaar nii ñuy jaar nale donc force de l'ordre yi waxuñu la ni doo dem wuy ji waxuñu la ni doo def li nga war a dem defi mais bu fekkente ni dañu la yoon wii nga war a jaar ñoom li tax ñu jaar loola fa te ñépp di jaar ak noo mënti tudd ak koo mënti doon lii yoon mooy nga jaar ñu des ak monsieur le ministre de l' intérieur euh, Félix Antoine Diome ci wàllu li nga xamante ni mooy li ngeen gis euh, du ñàkk ñenn ci yéen mbokk yi démb ci mbeddi ndakaaru ñu nuy woowee ay nervi ñu yore ay euh, boldee ki yet ci pick-up am ñu ne sax ba ñii di ngurgee ñi leen yebal ministre intérieur indi ciy leeral. xam nga force de défense ak de sécurité moom ñun moom la ñu xam les forces de défense et de sécurité nga xam ni ci état bi la ñuy liggéey am ñuy sol tenue am ñu dul waaye baatu nervi moom man xaw ma nan lay mën a duggee ci maintien de mais ñooñu ñu ñan la. waaw lool laa la leeral nii xam nga état. mais ak ngànnaay yi ñu yoroon. non dama ni état lenn lenn moo ci nekk dafay am ñi nga xamante ni dañ sol tenue dina am ñu solul tenue mais ñi ngay wax noonu exactement xaw ma ñan lañ. ah kon fu ñu mais ñan ngay wax. da ngay wax force de sécurité wala manifestant yi. ngay wax dañoo dañoo gis ñu solul tenue ànd ak policiers yi ñoom yoruñu ay fetal waaye ay ay ay cour lañ yoroon ay ay yat. non li ma li ma lay tontu léegi rek laa lay tontu Babacar c'est-à-dire force de défense et de sécurité yi li ci am mooy ñuy sol tenue ak ñu dul sol tenue jàkkaarloo ak ay manifestant yoo xamante ni ay sénégalais lañ ni ñoom nga xamante ni li ñuy njëkk a def mooy woo leen ci ñu dëppoo ak li yoon sam li yoon santaane ngir sàmmook moom bu fekkee defuñu ko am na ay technique de maintien ou de rétablissement de l'ordre mais euh, nervi moom man xaw ma ko li ma xam mooy force de défense et de